الناس وامسطنا في كل باس بحرمة رسلنا حسينا دلي في الدارين بالنارين بحرمة القاسم ثم الطاهرين سوي سوائرين مقدمائرين xormati tayyib Ibrahima waaw Baye Modou Seck de mooy ndongolo xeebu ndongoloo xam ne ku bëgg Serigne tubaala la it fas yéene liggéey Serigne Touba ci xasida yi fas yéene doon ab jànkat donte sax manewu ko waaye mu jéem koo doon rek moo tax ñi nap nap ci xasida yi waaye ku nu dégg sax ni ñuy waxee ak ni ñuy defee rek nga xam ne li ñuy def ni mënuñ ci dara lépp li ci def lépp rek sëriñ bi la wa seigne Modou fekk jaar-jaaram ci digeentem ak seigne Touba mo damay wax ne dama juddou fekk yi wayjur ñu ne ci yoon wi ma and ak ñom nek ci yoon wi depuis ba nek xalé bu tuti it la lama la la ma Touba commencé tek loxo ndax ma ci yek sama bop ni ci la gënon mëna sax ci kar ak di jang xassida bima ma nekkee legi sax wax deug yalla mënatuma waaye ba ma nekk xale moom sëñ Tuubaa defaloon na ma tawfeex joo xam ne ba tey it maa ngi ciy yëg sama bopp waaye xam naa ne na moom bu njëkk wuute na ak léegi waaye nag li ma sëriñ Tuubaa defal moom ak yokkute laa ci yëg ndax sëriñ Tuubaa man lu ma am lu ne moom la lii ma gàddu yi taxaw fii di ko yëkkati nu ma mel moom ma ko melal lu ma yorit ci laa ko jële kon man sama lépp xaside yi xaside yi la moo yor sama lépp baatu kun bi ñu ne biñ ci waxee na da cee ne ñun ñu ngi ci yëg suñ bopp bu baax ndax sëñ Tuubaa defal nañu ci taw feex joo xam ne def ak dindeeg lépp dañ ko ciy def kon loolu xaside yi moom lu mu munut amut moo yor lépp suñ teraanga lépp moo ko yor kon ñun xaside yi suñu lépp waaw. jërëjëf Baye jërëjëf.